sayyidina wa mawlaana muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi lxurri lmayamin mbokki jullit yi assalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel ci bis bu tedd bi di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ñu mbooleem jaam giñ ci def ñoo ngi nuyu ak di ziare ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa mu yàggal ko ci sunu kanam te may ko fan wu gudd ak wér ba mu yeggale naalam yépp dañ ànd koog moom mbokki jullit yi tey dañoo dikk ngir nafaraat bind bu aju ci ak ya nga xam ne war naa dox diggante mbokk ak moroom ja ak mbokkoo nag suñ ko tuddee mën naa yaatu lool ndax mbokkoo mën naa doon ci wàllu askan walla ci wàllu diine walla ci tariqa walla ñu bokk jubluwaay waaye waxtaan mi ngi gën a jooy jëm ci mbokkoo goo xamante ni diinee ko lal waaye bokk pas-pas ak jubluwaay mbokkoo gi ñu bëgg a waxtaane mën naa am sax mu dox diggante koo xamante ni ci wàllu askan doxut diggante ñaar ñooñee kon ñu bokk jubluwaay <clears throat> bokk pas-pas mbokkoo googu di dox seen diggante am nuñ ko war a sàmme ci la waxtaan wi gën a joy ndax mbokk mu mel noonu tey mbokk mu baax dafa am solo lool ndax diine moo ci njëkk a soññee ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa waxoon ne ahsin mujawarata man jawaraka takun muslima wa axsin musaaxabata man saaxabaka takun mumina soo bëggee sag njullit mat rafet sa gëm mat rafetal sag dëkkandoo ak sag àndandoo mu mel ne kon dafa wax ne liy payak àndandoo gu rafet mooy gëm yàlla gu yokk lii pay ak dëkkandoo gu rafet tam mooy day yokk lislaami nit ki day yokk diineem loolu nag ku ko déggee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xam ne àndandoo bu rafet ak mbokkoo guñ teg ci lu lislaam rafetal lu ama am solo la nit ñu baax ñi yeggoon ci yeggoon nañ ci wax ne ku sàggan sax ba gàttañlu ba mënoo am mbokk mu baax ya gën a lott ci nit ñi yaa ca yées waaye mu ne këla gën a yées nag gën la lott ci nit ñi mooy ku yàlla baaxe mbokk mu baax muy sàggan ba mu rëcc ko ajazu nnaasi man qassara fi talabi al wa ajazu minhu man dayaca man dafira bihi minhum tax sëriñ bi radiallahu anhu muy sëriñ bu mag bi xam gim xam ne mbokkoo lu am njariñ la rawatina mbokkoo ñoo xam ne leen boole mooy pas-pas ak jubluwaay mu leeral ko ci téeréb Nahju Qadaa'il Haaj di ca nett li wax joo xam ne ku baax ku ñuy wax Ma'mun al Abbas yi moo ko waxoon mu ne mbokk dëgg-dëgg ak xarit dëgg-dëgg moo gën a néew luy néew mooy bariwut wal axu xaqan wal xalilu sidqa an daru min kulli qalilin xaqa mu teg ca ne fa huwa allazi ka qawli man jalal xalak inna axaaka alxaqa may yasaamaak nee na mbokk dëgg-dëgg mooy ka nga xamante ni soo amee ajo mu ànd ak yow di dox ngir sa aajo joojee faju naka noonu mu teg ca ne mbokk dëgg-dëgg mooy ka nga xamante ni su fekkente ni e, gis na lu la nara lor daf la cay wuutu yanul la ko mën naa lor boppam sax ngir jariñ la wa man yadurru nafsahu li yanfaak wa man iza raybu zamani sadaak sattata fiika samlahu li yajmaak mu ne su la xati-xati jamono songe sa mbokk mu baax moomee dalay day jéem a dindi xat-xat yooyee ba nga mën a taxawaat ne jonn dalay jàppale ngir xat-xati jamono yooyee joge ci yow ba nga mën a taxawaat ne jonn sëriñ bi teg cene ne qultu wa man yuxfil xanaa li yarfaak bokk na ci mbokk dëgg-dëgg mooy ka nga xamante ni day gis say ayib mu dëgg ca tànkam ngir nga yëkkatiku day gis say ayib yoo xam ne su ko nit ñi xamoon bàyyi la mu nëbbal la ko ngir nga sa daraja mën des fa nit ña nee na mbokk dëgg-dëgg noonu lay mel loolu nag ku ko dégg te amoo woon mbokk mu baax war nga koo gëstu ji ba am ko ku ko amoon tam war nga koo sàmm ba doo ko ñàkk bokk na ci àq yi nga xam ne war naa dox diggante mbokk yooyu ñuy wax te mooy mbokk yu bokk jubluwaay ak pas-pas mooy boo amee alal te sa mbokk nekk ci ay xat-xat bul nekk lay laaj si ndax nee na na nga xam ne rek dafa nekk ci ay xat nga yëkkati sa alal dimbale ko ci ngir yàlla waaye soo négee ba mu jóg sax di la laaj si loola ak gàttañ lu lañ koy jàppee ci sa digganteek mbokk moome sëriñ bi itam wax ne soo gisee ku yayoo ku ko yayoo te mu sàkku ci yow ndimbal nanga ko dimbale ngir yàlla wa haysu raama minka du stixqaaqi fabdulhuma raama bila siqaaqi nee na te bul nay ci alali àdduna ji ak poñ pocin poñ poñitum bi ndax soo ci nayee man na laa andil gàcce ëllëg yowmal qiyaam yàlla nañ ci yàlla musal wala takun awdu baxiilan bil xutaam fi haadihi dunya fa tuxza fi lqiyaam kon boo dee dimbule sa mbokk ci sa alal xam ne aajawoo na nga dimbule ko njëkk sax mu laaj loolu lañ digle te nga jox ko sa wàccuwaay bi nga am nga jox nga teg fa sa mbokk la nga bëgg ku la ko defal ci lu baax nga yéene ko sa mbokk nangoo bokk ak moom sa alal ndax kat wax na ne nit ñu baax ñi daanañ seddoo seeni yére sax ñoom ak seen mbokk kaana ahaduhum yasuqu izaarahu baynahu wa bayna axiihi kon soo ko joxee sa wàccuwaay bi nga amal sa bopp fa nga teg sa bopp nga teg ko fa na nga ko gënal ci sa bopp yitam jiital aajoom ci sa aajo mu ne nag loolu daraja ju kawe la ña cay egg moo ñu alquran taggoon ci wa yuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa ña nga xamante ni mbokkoo ak rafetal ko yeggoon na ci ñoom ñu gis loo xamante ni mënoon nañ koo féetewoo te kenn du leen ca yedd ñu fob ko joxe ngir jëmi yàlla doonte ne menn mbir la ñu baax ñoo ñëwee day daawuñ nangoo ànd ak koo xam ne loolaal mu ne la tegal fii loolaal mu ne la tegal lii sama yëfa maa ko moom maanaam ku bëggee daawuñ nangoo ànd ak moom loolu la sëriñ bi di junji ci masaalikul jinaan naan aw qawlu haada liya aw yadurru nii fa daa sikaayatan li ajlil mihani koo xam ne loolaal ci ay yëfam mu ne lii bàyyi lii maa moom wala lii baaxul ci man koo xamante ni njariñam rek lay xool bopp njariñal boppam rek lay xool nee na kooka taxul ñuy wax mbokk mii nga xam ne moom la ñuy waxtaane tey ndax am na ku dikkoon ci sayiduna abu hurayra daal ne ko sëriñ bi day dama bëggoon a fasanteeg yow ak kóllëre nga nekk sama mbokk ma nekk sa mbokk sayiduna abu hurayra ne ko a tadri ma xaqul ixaa ndax xam nga luy àqi bokkoo ba nga bëgga a nekk sama mbokk waaje ne ko xamaguma ko de waaye soo ma ko baaxee ma jël abu hurayra ne ko an laa a axaqa bi diinaarika wa dirhamika minni dooma gën a yey ci sab xaalis de sartang noonu bu njëkk ngir ma nekk sa mbokk nga nekk sa mbok sa alal ji nga am dooma ca gën a yey na nga ca sañee def lu la neex ni laa koy sañe di ko déglu ne ko waaja ne ko aa ah, foofu moom yëggaguma fa foofu moom yëggaguma fa lam ablug hazihi l manzilata baad abu hurayra ne ko ne ko fazhab an nii kon day demal abal ma ndax yow mënagoo nekk mbokk sama mbokk ndax sart bu mag boobu te mooy ñu bokk sa alal yow tam nga bokk ak man sama alal sart boobu nee nga mën ko kon seetil keneen Ali ibnul Xuseynu radiyallahu anhu maam itam wax lu nuróog loolu ndax dafa gis kenn muy wane ne dafa bokk ak diw sàngam mu laaj ko ab laaj nekko ndax kii ngay wax ne sa mbokk la ndax am nga sañ-sañu fopp sa loxo dugal ci jibaam jël lu la soob walla nga ubbi porte-monnaie jël lu la soob ci alalam te du la ca jox ndigal mu ne ko déedéet mu ne ko kon nag dese ngeen te yéen a ngi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 أشهد أن محمدا رسول الله sunu la ilaha illa محمد رسول الله حي على السلام Allahu akbar te ni moom la kilifa googu waxoon ñaar ñooñu ne bokk na ci sarti mbokkoo mooy ku nekk saña def lu ko neex ca alali moroom ja te du ko tàggu moo tax ñoom itam yeggoon nañ ci sax ne fob alal seen alal dépensé ko ci dimbule seeni mbokk ci wàllu pas-pas ak jubluwaay moom lañ jiita doon sax ci seen alal di ko sarax faqiireeg miskin yi sayyiduna ali ibnu abi taalib waxoon na ne su ma yoroon ñaar fukki dërëm yoo xamante ni dama koy jox sama mbokk moo ma bokkaloo ngir yàlla moo ma gënal may sarxe téeméeri dërëm ci masakin yi mu tegaat ci moom sayyiduna ali yu ne su ma defoon aw ñam muy ay bernde ma woo ca samay bokk ak samay xarit ñu jëfandikoo ko moo ma gënal may goreel ab jaam ak li goreel ab jaam di am solo lépp nee na loolaa ko gënal yeggoon nañ ci rafetal mbokk googu ba nga xam ne mbokk dana fopp ay caabi caabi magasin këram wala caabi këram jox ko mbokkam ne ko lu la fa neex defal lu la fa neex jëlal nga xam ne daana yegg ba am ñoo xamante ni dañuy jéemale jéem a yemale seen bopp ak di am lu ñuy réservé wu ba duñ jëfandikoo lu leen sob ca kër ga loola nag sunu borom sax moo wàcce ay aaya alquran ci aw ma malaktum mafatixahu aw sadiqikum xam la ne dee leen féex man ngeen a nekk ñu féex nag ci seen biir këri mbokk ak seen biir këri xarit man ngeen a féex lu leen neex man ngeen ko faa jëfandikoo ci lekk ak naan ak lépp lu dagan ngir xam ne ne ñu nekk bokk nekk ay mbokk ci wàllu pas-pas ñoo war a bokk lépp noonu itam ci la mbokk di war a dimbulee mbokkam ci faj ay aajom bu dee lu ñuy dox la ngir mu faju na sol aw dàllam ba loola faju su fekkee lu ñuy wax la ngir mu faju yitam na ca wax ngir aajoom joojee mën a faju moo tax nit ñu baax ñi itam yeggoon nañ ci sàmm seen kóllëre seen digganteeg mbokkom mbokk mu fi jóge wuy ji boroomam ñuy sàmm kóllëre ga lu tollook ñeent fukki at ginnaawam daana leen jaral bët bu set ñu dem ca kër mbokk moomee fa jóge di nemmeeku njaboot ga ba nga xamante ni njaboot ga jëmmi seen wayjur rek moom lañ gisatut waaye ko mbokkam mii fi des taxaw la leen taxaw na taxawul na leen taxaw ba war ya gën a ndaw sax da leen koy laaj mbaa diwlin manqué wu fi mbaa xorom manqué wu fi mba aajowu leen lenn te luñ fa aajow buñ ko waxee mu dem jëndi ko ñëw tegal leen loolu nag ginnaaw kookee mu bokkaloon wuy jina mu boroomam ba mu man ñeent fukki at sax su fi nekkoon dana ca bég kon su ko defee ci njabootam tam dana ca bég moo tax sëriñ bi di ñu soññ ci kula laaj sa alal ak kum man di doon na ko jox ngir jëm yàlla wala yarum minka la yaadan arimu illa faaltahu bi daaka tukramu moo tax ku ñu wax ata itam daana wax ne dee leen nemmeeku seen mbokk deen leen dem di leen seeti bu leen jëlal ñetti fan lu dul na dem ngeen seeti seeni mbokk ndax mu ne benn bu ngeen seetee seen mbokk nemmee jug ko nemmeeku ji benn ngeen fekk leen ñu wopp ndax yàlla ngeen man man leen a seet ca seen wopp joojee te loolu lu baax la wala ngeen fekk ñu am ay soxla ngeen dimbal leen seen seen soxla soosee ba mu faju te loolu itam lu baax la te su ngeen dimbutoon du ngeen xam loola wala ngeen fekk leen ñu fàtte lu ñu wërtoon a fàtte ngeen fàttali leen ko te loolu itam lu baax la kon nee na ñetti fan daal wërta weesu lu dul ne danga mbokk dafa war a dem nemmeeku ji mbokkam seeti ko ñetteelu àq bi mooy ku mbokkook diw sàngam wala ku man di doon nay noppi ci ay sikkam bañ koo feeñal su ko déeyee secret itam na ko sàmmal secret soosee ba du ko jàllale ci keneen te itam bu may kenn muy sikkal ak njabootam wala waa këram te ku ko nettali ay ayib ca mbokkam moomee itam bum ko nettaliwaat bum ko ko nettaliwaat ndax dégg ñuy wax sikk ci sa mbokk nga ñëwaat ba ci sa mbokk ne ko diw sàngam neena na ci yow sikk sàngam loolu itam baaxut ndax dañuy wax na inna allazi sabbaka man ballagak ki la ŋàññ dëgg-dëgg mooy ka la ay ŋàññi ki la saaga dëgg-dëgg mooy ka dégg ñu saaga la foo yëgewutoon mu ñëw jottali la ko waaye loolu teewut nag soo déggee ñu wax ci moom lu baax nga ñëw jottali ko ndax loola itam lu koy bégloo la moo tax nag téye secret baax lool te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yàgg cee soññee nee na soo fekkee ñaari nit ñu taxaw nga jub leen ñuy wax ba sàgg ñu geestu nee na ka muy waxal soo amee am xel dana xam ne wax ji mu koy wax mu koy deey bëggul mu jàll ci keneen ida xaddasa rajulu bi xadiisin summa altafata fa huwa amaana ngir wet wattu sekkare rek taxoon na nit ñu baax ñi am kuñ kuñ ci laajoon ne ko buñ la dénkee ab secret noo koy wattoo mu ne ana xabruhu man maay bàmmeelu secret te bàmmeel lu ci dugg doo ci génn nee na moom mooy bàmmeelu secret luñ ko wax du ko jàllale keneen ci loolu lañ dëggoon ba ne woon suduurul ahraari xubuurul asraar dënni gor yi li ñuy denc ci ay secret mooy bàmmeelu secret ya sudurul ahraari quburul asrar am na ci ñoom ku dee yoon mbokkam benn secret wëlbati ko ne ko ndax téye nga secret bii ma la déey mu ne ko fàtte naa ko sax moo tax nag al abbas ibn abdul muttalib yàgg koo dénk ak njabootam yàgg na ko dénk abdullah ibn abbas dane koon yow sama doom abdullah gis naa ne kilifa gii de fonk na la tam jublu ci Seydina Omar fonk na la ba di la jiital ci mag ñi te yow ndaw nga waaye fonkeel gim la fonk nag moo tax ma bëgg laa dénk juróomi mbir ba ca njëkk mooy laa tufsiyanna lahu sirra kilifa la dana la déy secret bul feeñal secret boobu bu ko senn bu ñaareel ba mooy bu ko jëw te bu ko andil kuy jëw bu ko andil koo xam du wax dëgg bul moy ndigalam te bu ko war muy juróom mbir yoo xamante ni al abbas ibnu abdul muttalib dénkoon na ko doomam jooju di abdullah ibnu abbas moo tax yonent bi alei salatu wasalaam waxoon ne jullit jullitay mbokkam du ko tooñ waaye du ko seetaan ñu koy tooñ ndax mbokk moo xam ne dalay seetaan ñu lay jëw ak di la ŋàññi mu ne cell noppi te man ca dara kooko du mbokk ñeenteelu àq bi ñuy tëjee waxtaan wi mooy mbokk day ñaanal mbokkam moo xam muy dund wala mu jóge fi ndax soo ñaanalee sa mbokk lu baax sunu borom day sàkk am malaayika mu taxaw ci wet ga ne la lii nga koy ñaanal ci lu baax yàlla na nga am lu tol noona yonent bi aleyhi salaatu wasalaam itam waxoon ne nit bu dee ñaanal mbokkam fu mu nekkut ñaan googee deefu ko delloo des koy nangu moo tax Abu Darda waxoon ne ci biir sujjóot rek danaa ci ñaanal lu tolloog juróom-ñaar fukki nit samay mbokk nee na damay yàgg ci yegg sax ci tudd seen tur yow sunu borom yàlla na nga jéggal diw sàngam yàlla na nga jéggal sàngam ba mat juróom-ñaar fukk ñu wax ne itam mbokk mu baax ku ko amul war na koo wuti ndax soo fi jógee sa ndono ñi lay donn ci wàllu deret ñoo koy séddoo bàyyi ko fële moom mbokk mu baax moom nga xam ne pas-pas ngeen bokkoon mu beru fële ak njàqareem di la xalaat di xalaat fa nga fa ngay mujj di xalaat fa nga nekk bu guddi jutee xaaju guddi mu di la ñaanal te fekk yaa nga sàngoo bàq ci biir suuf kon mbokk mu baax mënut a ñàkk te lu am solo la ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala nii mu ñu ko waxee te lépp di alquran tegu ci sunna sunu borom may ñu ñu melowoo noonu ñoo ngi ñaan sunu borom itam yàggal fi sëriñ bi te may ko fan wu gudd ak wér yaram bam yeggale mbooleem naalam yi dañ ànd koog moom wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa taala wa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 على الصلاة هيا على الصلاة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 التقوى عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه اعتقادا وقولا وفعلا ظاهرا وباطنا واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار لكم fastacidu lilmawti faqad agallakum waqad qaala sallallahu alayhi wa sallam akhiru min dikri haadimi lladaati xataa yanqatia rukunukum ilayha alaa wa innakum fi yawmi camalin laa xisaaba fiih ألا وإنكم توشكون في يوم حساب لا عمل فيه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار والصلاة والسلام على المبعوث للخلق بالتفسير والإنذار سيدنا محمد بآله وصحبه أولي الأيدي والأبصار أما بعد فيا عباد الله تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق منها قسطاس الشريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الآخرة خير وأبقى وما في وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الناس اعبدوا الله واشكروه على نعم لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم عليه به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك فكيف بما عدا ذلك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 allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa بحلم ربك على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله ماء محيا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم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 ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum